أزاري ملاسي أرجو برحمتي الله asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu yéen waa site bii di 24 actu di rafetlu seen teewaay ci bis bii nga xam ne moom la ñuy defal alaaji Mor Gueye moom Cheikh Mouhamadul Fadal kan mooy alaaji Mor Gueye nag bu ngeen ñu ko laajee danañ ci sawar lool ndax moom jàpp naa ne fii ci Touba moom deefu deesu ko fi laajte ci gàttal rek doomi sëñ Modou Guèye la ak ku ñuy wax soxna Aram Seck cosaanoo fu ñuy wax njàmbur di sëti may sa ten di jor waa di doomi sëñ Modou Guèye ñu tudde duppe ko maamam ku ñuy wax sëñ Mor Guèye giléem nekkoon ci gànnaar ci yoroon yoroon fa Seexul Xaddim ay giléem waaye juróom wu góor itam di sëñ Modou Gueye nekkoon na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a topp Cheikh Mahamadul faadal ay toolam nekkoon foofu ci ndindi boo boo booy jëm ci yoonu bokk bi rek foofu la ah, toolam nekkoon sëñ Modou Gueye di way juróom ne ca daara ja ba am ngërëmul Cheikh Mahamadul faadal indi fa ay doomam ab taawam di sëñ Cheikh Gueye ak alaaji Mor Gueye ak ku ñu wax sëriñ Seer Gueye teg leen ci loxol Cheikh Mahamadul Fadal sëñ Seer moom dañ koo tungoom indil ko Cheikh Mamadou Fadal sëñ Seex Gay mi nga xam ne mooy ab taawam wax nañ ne bi muy ñëw sax mëtta ñëw dañ koo tungoom indil ko Cheikh Mamadou Fadal mu ñëw ci loxoy Cheikh Mamadou Fadal 1946 la jébbalu ñëw Touba nekk ci daara yi nekk ci daara yi jaar na fu ñuy wax ñànka jaar na itam fu ñuy wax aliya jëwriñam doonoon suñ Mor Cissé mi nga xam ne mooy bàyyi sëñ Cheikh Cissé moom ndindi mu mu ne ci daara ji ba liggéey ci ba euh, ni sëñ bi wootee liggéeyub jumaa ji mu mu mu mu ñëw ci mu mu ñëw ci jumaa ji bi sëñ bi euh, jël dongo yu dem ci jumaa ji da ko caa boole euh, ndax booba Touba ndox manqué na ndox lool booba Touba manqué na ndox lool ndox mi ñuy liggéeyee jumaa ji booba benn forage amu fi mooy teen bi nekk jaajëfal la sëñ fa jënd ab pomp def ko fa moo fi njëkk am ginnaaw forage su Daaru Manaan bi pompe bi nag comme matériel la alaaji baaraam sëñ Fallu moo wax sëñ fa bi ñu wut ku fa mën a ne moo wax sëñ Fallu ne ko gis naa ku ñuy wax Mor Gueye xam naa dana dana ko mën a wattu ñu daal di koy jël mu di ko wattu am na lu am xorom sax lu ci am ci wattu kooku mu ko doon wattu ndax tubaab bi day fanaanee xoole ba bët seet ngir garder pomp bi ndax bañ saay-saay ñëw di ko jël léegi bu leeree lay lay lay lay xaw a dallu léegi mu wax tubaab bi ne ko bu boo ñëwetee nag ma tubaab bi mu ñëwee da ko da koo dóor wax nañ da koo xaw a dóor eh, waaye daa jóg rek ñu jàppante fa eh, ba sëñ seexum sëñ Saaliw mii sax nettali na ko moo duggee ne ko sabaay bi muy kii tubaab bi fekke naa ko man sëñ seex mbàkkim sëñ Saaliw ne ko ba sëñ Sotu bi muy jotee tubaab bi fekk naa ko mu nekk foofa itam di di saytu di saytu di saytu pomp bi ci ndigalul Cheikh Mamadou Fadal ba ni jumaa ji àggee ci la leen sëñ lu wàccee wax na ko mook sëñ Cheikh Lo Ngaabu ne leen ndax sëñ Fallu daa joxe woon ndigal ne bu kenn tabax sa kër te jumaa ji àggul wax nañ ne bi jumaa ji àggee sëñ seexloo Lo Ngaabu mii moo moom la ko wax ne leen sëñ bi dafa wax ca wala xadd karam naa ne leen rabbi stajib waltu kammil maanawee tulada tuba bi ka tum naa fii ka bun yaana daan ne bun yaana jooju nag lu tax lu muy doon jamxu mooy tabax ga la wax ak tabax yi tabax gi nag àgg na kon mën ngeen dem tabaxi seen kër ci lañ am ndigal ñoom sanci seeni kër mu njëkk a dëkk foofu ci ngaat na sàll googu nga xam ne alaaj moor day mbokkum sëñ mbay mbay sàll ndax benn gay mi jur sëñ mbay sàll moo ko alaaj moor ñoo bokk lépp këram nekkoon foofu ci koñub kër sëñ Fallu bii di kër sëñ Seexuna am sëñ Fallu ginnaaw bi bi suñ Fallu defee communiqué boobu ne do ma ñu aju ci moom te di waa këram nañ génn ba ginnaaw ñaar fukk fa ak juróom-ñett ci lañ jëlee kër googu jox ko sëñ Moor Jaxate ngir muy mën a nodd ci jumaa ji mooy kër sëñ Seexuna am sëñ Fallu daal di koy toxal foofu ci ginnaaw kër sëñ Abdou Jagi fi jàkkaarloo kër sëñ Abdou Salaam foofu daqaar gi ne ginnaaw bi itam bi kilifa yi ñëwee mu defaat beneen communiqué ne nañ gën a dem ñi nga xam ne ay waa këram lañ ndax sëñ Modou sax moo dëkkoon kër sëñ Abdoulaye borom dër bi mu ak ak njabootam yëpp da leen a wax ñu ñu ñu ñu ñu ñu njaboot ak sëñ la bëgg ñu wër ak bokki sëñ Tuubaa yi ñu ñu sa ñu wër penc mi ci la ko toxalaat ci kër googu indi ko fii nii ne ko demal ba ci ginnaaw ñaar fukk fa ak juróom-ñett yaa ak sëñ Cheikh ngeen dëkk fa ñaar fukk ak juróom-ñett nag mooy mbeddu 28 bi fii ne ñu bëri dañuy jàpp ne 28 mooy fee ca station ba rek waaye comme ni ma koy waxee rek mooy mbedd mi mbedd riib yi nga xam ne moo commencer ci eh, buntu marché bi ci ci ci fi pompe bi ne mbedd mi moo yaatoo 28 mètres la la la ngóoru mbedd mi moo gudde 28 ba ba ba ci 28 ba ba fi ñuy wax 28 moo tax mu ne leen dem leen ngeen dëkk ca ginnaaw 28 ba ñu bëri nag boo leen laajoon dañuy jàpp ne 28 ca yoonu Mbàkke wala waaye mbedd mii moo doon 28 mètres ci largeur moo moo leen indi fii kii kër yi ñu ne mu toxu fi ñëw fi nekk fi ba ni sëñ Fàllu euh, sëñ Abdou Bousso yor dëkk bi sëñ Abdou Bousso di doomi sëñ Afia bu bokk ak sëñ lépp moo yoroon dëkk bi ba 1966 sëñ Fàllu daal di ne dama bëggoon ñu wutal ma ci donge yi ku mën a yor dëkk bii di Touba. sëñ Ousmane Bousso moo ko proposé ne ko gis naa ngóor soo xam ne di sama ndax bi mu ci wàccee ci daara ji rek dafa dugg ci mbirum yaxantu ba yor boutique ci ginnaaw kër sëñ fallu gi rekk kër soxna soo sëñ Fàllu suñu Ousmane so moo ko pour proposé ne gis naa euh, ku ne sama bitig bi koo xam ne nii de man ci gone ndaw la te it sawar na te it jum na xam naa ne buñ ko joxee dana ko man Sëñ Fallu dafa ñeme woon waxtaan ne ko li nga wax loo foo ko wax foo ko teg mu ne ko euh, dama koy am yu ma koy dénk yoo xam ne ni ay dépasse la yu jëm sama kër ak yee ci aju am na ci yoo xam dama koy fàtte sax waaye nam koy nam koy nam koy lijjantee day day day day war Euh, ku jub la te musuma koo woo mu wuyu jéem ak ci kër jigéen ña te bu ma ko waxee toogal ba kii danaan bàyyil ma dem ci sama laax ba yooyu euh, fiir naa ko ci ma mucc ci te yooyu ku ci mucc rek loo ko dénk dana ko mën a yor moom da koy wax sax ne booba moom bëgg euh, yoru dëkk ndax booba commercé na ba jënd oto alaaji daa am daraame defal ko ko am mbaar ba muy bëgg a jëndaat beneen booba yorub dëkk xam naa néewutoon ci xelam waaye ku sa sëriñ digal moom noo mën a def danga ko def rawatina ku toll ne Cheikh Mouhamadul Fadal nee na sëñ Fallou daal di yónnee kon ne nañ ko ko jox sëñ Ousmane Bousso moomu nag homme de confiance sëñ Fallou la woon sëñ Abdou Khadir daana wax ne euh, nit ku mel ne sëñ Ousmane Bousso kilifa gu ne war na ko am ndax moom lim xam lépp ci sëñ Fallou te doo dégg benn nettalikat ne sëñ Ousmane nee na ma te tëdd rek moo ko daan tàqaleeg Cheikh Mamadou Fadal fa la daan xéewloo ndax li Cheikh Mamadou Fadal daan xéewloo këram lañ ko daan waajale ci soxna Soda lépp Euh, daawuñ tàggale ko maanaam fatu ji rek moo ko daan tàqaleeg moom te lu ne rek Sëñ Fallu wax na ko ko lu ne na ko itam waaye nit ku am secret la moo ko proposé wax loolu ñu wooyi ko ne nañ ko wooy Sëñ Fallu daan ne nañ ko wooyi te ak Baxaw Fall mi nga xam ne boobu mooy chef de canton bu Mbàkke ñu yónnee wooyi ko mu ñëw ñu moom ñu woo ko nee na bi muy dugg dégg na ñuy tudd aw turam bi mu ñëwee sëñ bi ne ko dañ ne ma mën ngaa yor dëkk bi ma bëggoon nga yor ko dama la ko damay digal nga yor ko nee na bi ñu waxee ñu ne tekk tuuti waxut dara moom xam nga rek koo xam ne nii ab commerçant da jikkoy commerçant <laughs> ñu ne tekk tuuti mais baxaw faal daal ne ko mais sëñ bi defal li la li la sëñ bi wax nee na mu ne ko yow moom sëñ bi waxu mu ma bëgg nga nga nga maandu ci ndax mu doo ma digal doo sama kilifa man genn kilifa laa am muy muy sëñ bi te lu ma def dinaa lu ma digal dinaa ko def sëñ bi nag nee nañ da koo xaw a tàcc foofu ne waaye kii di buur nga di ko nga nga nga nga nga di ngay wax ak moom kii sañ maa jàpp jàpp la ah nee na ñu ne teg jotaay bi ab diir boobu daf koy jàngal ni ñuy yore ak ni ñuy nekkee njiit ak di xool ay réaction am tamit suñ Fallu dafa bari xam-xam nee ñu ne teg teral na baxaw teral na baxaw faal it ci wax ji ndax moom duutul waxate benn baat du ko ci ti moom nee na ñu ne tek ba yàgg mu ne ko nga ne lan mu ne ko. waaw Mbàkke boo ma ko digalee rek ma def ko yow loo ma digal danaa ko def ndax dama dañoo bàyyi woon suñu baay ak suñuy waajur ñoo jox la suñu lépp moo muñ suñu bopp muñ suñu bopp dara waaye dëkk bi dafa am ñett ñu fi ne ñoo xam dama leen ragal mu ne ko ñan nga bëgg ci lan mu ne ko ñett ñi ñan la mu ne ko bokki Sëñ ak dongay Sëñ Tuubaa yi ak waa kër Sëñ Tuubaa yi dama leen ragal boo nee ma doo ci yàqu doo ci yàq ma yoral la ko ndax ñett ñoo ñu dansé lañ te ñoo ne ñoo dëkkee dëkk bi bokki Sëñ Tuubaa ak dongee Sëñ Tuubaa yi ak doo ak ak doomi Sëñ Tuubaa yi waa kër Sëñ Tuubaa ñoo dëkkee dëkk bi te ñu dansé leen te nit mën naa wax ba yàqoo fi ci ñoom rawatina ñu la jiitalee mu ne ko tàlla loolu moom yomb na euh, doo ci yàqu doo ci yàqu daal koy ñaanal mu commencé jël liggéey bi ba ni fi Sëñ Fallu jógee moo yor Tuubaa ñett euh, ñetti at yooyu 66 67 68 ba ni fi Sëñ Fallu jógee moo ko yor Sëñ Abdou Lahat bi mu fi jógee yor na ko ñetti at ginnaaw bi la fi Sëñ Abdou ñuy wax sëñ Lo waaye ginnaaw bi la woo suñ Cerno Jaw jox ko ko muy muy mu liggéey liggéey bu am solo ci dëkk bi fii doon bërëb boo xam ne fii lañ daan àttee lu xew ci dëkk bi boobu dëkk bi daanaka lu xew rek dañ naan dañ dem ci kër borom dëkk ba mu àtte ko ay àtte yu bari mu doonoon ku am xerañte ci àtte xikma wàllum ma ci àtte euh, njiit lu ne war na ko jël ci ñi ngay àtte ndax bu daan àtte ay nit ñu def dara ci dëkk bi ci garab ga lañuy dem garab gi waa dëkk ba ñëpp menoon nañ ko maanaam mbooloo mépp dañuy toog buñ toogee mu ki kiñ tooñ wax ki bu bu noppee ki tooñ wax bu noppee mbooloo mi ci boppam ñooy ñooy ñooy euh, bu li ñu ëpp li ñu wax rek loolu noonu la ñuy noonu doxal mu neex ak mu naqari nag moo moo xam nga am doole moo xam nga ñàkk doole. loolu ku koy jëfandikoo ci àtte ñi ngay àtte duñ la mere duñ la mere te it li ngay àtte ak maandute ndax ndax ñun ñëpp mënuñoo maase ci ñàkki xel. am na ci koo xam ne it bi mu nelawee la fi doog a ñëw andi fi am lu mu fi indi daan ne seen wayjur dafa am lu ma defal di wax lu mu ko defal loo xam ne moom nee na mi ngi koy doog a wax ndax ca njëkk ji dafa am xaalisam bu xaalisam bu mu foroon bu bari mu jël ci ñetti téeméer sànni la ca des ba mu demee ba feeñ mu mu ko ngir mu àtte ko mu woo ko ci mu néeg ne ko damaa bëgg nga wax ma li ciy dëgg rek mu daal ne ko nii la demee xaalis bi moom ay la yéen maa ko for waaye ñetti téeméer képp laa ci jëloon. la ca des dama ko dama koo sànni mu daal di wax lim ba nu mu tolloon mu daal di wax lim ba nu mu tolloon mm, mu daal di koy wàññi woo waay juram ba mu agsi ne ko bu mbooloo mi toogee rek dangay daal ci sa kaw doom ba xolu ki nga xam ne moom lañ foroodom xaalisam sedd nga yëkkati na ko xaalis baa ngi nii nee na noonu la ko àttee kenn xamut ne eh, ma moo ko fay moom ba nim nelawee lañ xam ne moo ko fay kon ku xarañ la woon ci wàllu àtte mu mu mu mu mu yor mu yor dëkk bi yorin wu rafet ba ni fi Cheikh Mouhamadul jóge jógee itam euh, bidig bo bidigam boobu moomoon ci kër Soxna Sooda euh, moom la yëkkati mooy da koo changé woon seng ba mu fa defoon euh, ginnaaw bi la fi def seng bërigo yi nga xam ne bi ñu ko dindee sax yàggut ci koñu kër Soxna Sooda bi nga xam ne moom ngay jàdde jëm kër Soxna moom mi am na ay seng bërigo yu fa nekkoon bidig boo xam seng bërigo yi ku amuk fàttaliku tuuti da nga ko xam da nga ko gis bi mu ko sensé def fi eh, bornage cinq ba mu ba mu ko sensé bi sëñ Fallu nelawee ci guddi gi mu booba la njëkk yëkkati këppal ko Cheikh Mahamadul Fadal daf ko daan nettali naan eh, états yi ma am xam naa ne loolu moom ma ko may tey dëkk bi yor na ko ba ni mu fi jógee amul benn terrain boo xam ne ni am na ko ci bi mu yoree dëkk bi lu mu fi amaat rek ginnaaw bi la ko jënd la ko jënd waaye benn terrain boo xam ne nii ci nekkam la ko am ci dëkk bi amul muy muy muy mu mu mu bi sëñ Fallu nelawee diggante fi ñu koy def ak yooyu ak waxtaan wa ca amoon sëñ Modou da ko doxale woon ci diggante bi mu dox ci diggante sëñ Abdou Lahat moom moo mook sëñ Abdou Lahat ak sëñ Sohaybu ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma ba am ci ak déggoo ba wax na ne da ko daan nettali ne bi ñuy def sëñ bi sëñ Cheikh Gaynde Fatma moo jéego diggante euh, sëñ bi ak foofu bi mu ko jéego ba bi dolli ci ay jéego ne nañ sóoraale liggéeyu barab bi muy am ku amoon taxawaay ci kër sëñ Fallu ci euh, mboolem njabootuk sëñ Fallu gi mu amoon taxawaay bu rëy digganteem ak sëñ Modou ci ñoom muy góor ñi ak jigéen ñi di nit ku dëggu itam nit koo xam nit ku jubla itam am am doon doon ko amuk taalibe itam musta am fi mu jaar it taxutoon mu tekki ak laxasaayam ba ni mu fi jógee da daan yëkkatee ay addiyaam di ko joxe at mu jot njabootam gi mu am it amul kenn koo xam ne nii joxewuloo nga dem muritu ji ñëpp da leen a séddal doomi kër Sëñ Fallu koo fa dem rek da nga fa fekk doomam wala doomi magam wala doomi rakkam nga xam ne moo la fa yóbbu ba ci jigéen ñi sax da leen a joxe ji woon ñu ñu dem def loolu ñuy wax saa amu doon ab dogaleen ci boppam ci boppam ndax euh, bu amoon am tudd day toog ku fi mag ci doomi sëñ Fallu rek boo ñëwee moom la ñuy tudde doom ja ba am looloo sabab turu sëñ jiili mu jigéen ndax ki mu tuddee sëñ aboo mii euh, sëñ kii la ko naroon a tudde mm, euh, sëñ sëñ aboo moo ma sëñ sëñ jiili la ko naroon tudde moo makoon ci jotaay ba waaye dañoo xam ne biñu demee bay tudd la sëñ ñëw ànd ak sëñ Moodu ñu tuddee ko ko far mu ne sëñ jiili mu yow sa wàll la ngi ñëw mm. kim mujj gis jigéen la mu tudde ko sëñ jili di dëggal waxi waxi sëriñam noonu la ab taalibe war a mel mooy di su toujours ngay confirmer di jéem a xool li nga xam ne sab sëriñ da koy wax nga di ko jéem a dëggal loolu euh, mënees na ko seede ci moom waaw bis bi nag ren lañ ko commencé woote ci euh, ndigalul sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamadoul Fadal di ko ñaanal mu yàgg fi lool téwér ak sëñ Muntaxa ak mbooleem njabootuk sëñ Tuubaa gi mbooleem njabootuk sëñ Fàllu gi ak suñu wayjur wi nga xam ne moo moom lañu fi dese muy sëñ Sidi Gueye di njaboot ak sëñ Abdourahmane Gueye dëgg jóge ba si Xotaan mm, xam ne sëñ Fallou jaar na fa dem na ci ñoom ba seeti leen foofa euh, li ma wax rek ñoom ñoo ñooñu itam euh, ñëpp da leen yëkkati teg leen ci loxol sëñ sëñ basum sëñ Fallou kër gu njabootam demul rek maanaam yi fexe na ba njabootuk rakkam wala njabootuk magam mu mu yóbbu leen fa euh, bis bi ran lañ ko commencé a woote ndigal li nag li tax ñu woote ko moom moo moo ko joxe moom moom ci boppam moo ko joxe euh, te it dafa euh, mooy bis bi nga xam ne moom la ko fan lu joxe woon dëkk bi ndax bi mu fi jógee dañoo xool ay bagages am kenn ku ne xam ne 1927 euh, la gane àdduna mille 1900 2019 la fi jógee dund na juróom-ñeent fukki at ak ñaar ñaar 46 tamit la ñëw Touba juróom-ñaar fukki at ak ñett am na ko Touba yoo xam Moustapha naan fu du Touba. lu dut bi mu demee Màkka 1974 ak bi nga xam ne magam dafa tawat nekk Dakar sëñ Cheikh Gueye sëñ du jox ko ndigal mu dem taxawu ko te ñaar fukki fan ak juróom la lim juróom-ñaar fukki ak ñett daal yoo xam ne nii ñaari weer kese la musta am yoo xam fanaanu ko Touba. bis bi itam li tax ñu woote ko ren mooy euh, daa wootewuñu ko ndax kenn ku ne xam contexte bi mu dajal ak fi jamono ji toll. waaye bi bi mu nelawee dañoo xool ay dañuy xool bagage mi dañ cey gis aw këyit woo xam moom moo ko bindal boppam muy wi ma mu mu mu bind ci ne. lii mooy sama bis mooy bis bi man sëñ fallu joxe woon dëkk bi ci ndigal ci dëkk bii di Touba mooy sama bis digal naa leen ngeen di ma ci santale yàlla ak sëñ Fallou mi to mu tolloo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru Sambaan muy weer wi ñu ne. Mm, date bi joxe dëkk mu bind ko ci weeru tubaab le 22 11 mois 1966 Mor Gueye Touba loolu la ci bind daane mooy sama bis bu ñëwatee na ngeen ma ciy santale yàlla ak sëñ Fallou mu sorewu tamit nag bis bi mu fi jógee. dafa soriwul tam ak bis bi mu fi jógee ndax bërki démb la bi ni si saabaan bi ci suba ba ci suba ga la fi la la la fi jógee maanaam biñ màggale euh, fukki fan ak juróom mbenn la fi jóge lii mu bindoon ko 1998 def na ko ñaar yoon 98 ak 99 waaye booba la ko gëj def waaye euh, mënuñu lu du jëfe ndigalam comme nun la fi bàyyi ñu gis ko teyit mu mel ne taw feex da cee am muy bis bi nga fi jógee kenn ku ne xam ne ne Sëñ Fallu da ko daan moytuloo ay ñu bari da bëri na bis yu mu da daan wax ne bisum naqar du bisum mbégte ba ci màggalu daaru mu sigi it moo ko changé jox leen bis bi Sëriñ Tuubaa daje woon ak maam Thierno ñun nag ñoo am tawfeex joo xam ne nii ndigal lañ ci am muy ndigalul way jur kon mënuñu lu dul jëfe ko muy bisum ndamit ndax bis bi nga xam ne ci la la bis bi nga jàpp na wàcce nga Sëriñ Fallu di Sëriñ Tuubaa woo la joxaat la ndigal loolu doy na sëkk bis kon ñoo ñoo ñoo ñu ren lañ ko commencé euh, fañ ko jàppe woon sax yàlla kawe na ko euh, njor ndax nañ yéene woon mën nañ ne bu dewoon bu bu doon cinq pour cent la mën leen ne dañoo àgg 100 pour cent ndax jàppuñ ne lii lépp mën na ci am waaye loolu lépp li ko waral mooy jëfal ku mat jëfal ak am ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla ku ko am sa dara du tak ñoo ngi sant itam njabootu ko Cheikh Mouhamadul Fadal gi ci suba ba tey eh, ñi ngi woote Cheikh Mouhamadou Sëñ Mourtala am Cheikh Mouhamadul Fadal mi ngi woote nee na eh, jombut bu amee genn oyof rek dina ñëw ak sëñ mi ngi ci biir kër gi ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo dëkkee ci dëkk bi amoon amonte moo amonte moon ay ay ay amonte moo amonte moo amonte woon ay wëllëre eh, ñëpp ñi ngi ñi ngi ñëw di saafonte eh, ak njaboot gi gi mu fi bàyyi di wax na itam eh, njabootam gi ñu war a góor góorgóorlu lañ wax naa leen ko ndax aaj mor lu mu liggéey loon sëñ Fallu rek njabootu sëñ Fallu ki fay nañ ko ndax bi mu fi jógee amut lenn loo xam ne ni ak njabootam def na ko ba ci hôpital ba mu tëddoo nag ba ni mu fi jógee bi ma xoolee li ñu def ci euh, sarax ci ba ñaan ga daanaka jege na fukki million ak ñaar te amul benn dërëm boo xam ak njabootam def na def nañ ko ci ba euh, liñ fi indi woon sax dafay des te lépp njabootuk Sëñ Fallu gi ñoo ko def kon lu mu lebaloon Sëñ Fallu rek ñoom fay nañ ko ko ñoo ngi ñaan dëpp dëppoo ci ak ngërëmul sëñ bi di ñaan yàlla taasu ci barkeem ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ndax moom wërsëg bi ko yàlla wërsëgaloon ni mu ko daan def mooy da ko daan séddale ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon nekk ci daara Cheikh Mahamadul Fadal ba ni mu fi jógee kenn musu koo joxel benn dërëm itam ak njabootam daa nañ ko wax ne ko dañ laa bëgg a teggil njël li waaye dane woon sëñ Fallu moo ne kenn du ko yor moo yoru njabootam ba ni mu tëddee mooy mooy joxe dépasse ci kër gi ndax nangu ko woon kon ñoo ngi ñaan yàlla taasuñ ci barkeem te wanale ko ak sëriñam bu tedd ba barkeem Cheikh Mamadou Fadal wasalaamaaleykum wa rahmatullah